Ziguinchor dañ ko doon bàyyee xel kan la président Macky Sall di tànn ngir ña ko fay représenté waaye xam leen ni diggante Abdoulaye Balde ak président Macky Sall jeex na ndaxte du Balde la président Macky Sall tànn ñeneen ci ay ñoñom ñoo nara kenn ki ci commune bi keneen ki ci département ngir fexe nu ñu amee ndam ngir coalition benn Bokk Yaakaar waral ba kii di Abdoulaye Balde moom mujj na daa di nag euh, taxawal dëggal boppam ginnaaw bu mu jokkoo téléphone ak le président Macky Sall ndax njiitum réew mi dafa am leneen lum ko doon proposé mooy sàkku ci moom mu bàyyi mairie bi te yootu département bi waaye président Macky Sall yemu ca xamal ko it ni am na volonté daal di koy nommer jox ko benn ci post institutionnel yi loolu nag la Balde lànk ni du ko nangu moom jiital UCS waral ba sax am nañu njort ni boo muyul ñàkk àndam ak président Macky Sall ci local yi dana gën a jege Ousmane Sonko bu Pastef waaw ndax xam nga ni Ziguinchor bokk na ci localité yi ñu bàyyee xel ci élection yi ngir enjeu bi mu représenté Ousmane Sonko euh, génn ci élection présidentielle yi ñu génn doon ca troisième ak quinze pour cent ci électorat am ñu jàpp ne xëy na ci local yi ñu jëm mën na faa déjjate kii di Abdoulaye Balde ak ñeneen ñuy woote woo Benno Bokk Yaakaar mu mel ni tey boo moyul Balde ak Sonko daañu joxante loxo ngir ne tey Abdoulaye Balde génn na ci bile euh, coalition di euh, Benno Bokk Yaakaar lu ni mel nag dañ koy topp xam ana fan la wànnent di mujj ak i gëtëm ndax Balde dina mujj ànd ak Sonko wala Sonko ànd ak Balde ci kanam la ñuy xam mbir yi fan lay mujj.